الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الحمد لله والسلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نذير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة أصلي وأسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم أصلي وأسلم على سيد المرسلين الذي جاءنا بالآيات والحكم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk julli ñi gannaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne yónni na ay yónnatu yu bëree bëri ki mujj ci ñoom mooy yónnatu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mooy lan mooy li ñuy organiser wu ba nekk ci jàmm gannaaw bi sant yàlla mi nga xam ne moo wax ne xaraamal naa ci sama bopp man yàlla tooñ yéen jaam yi bu leen tooñante yàlla nee na moom ci boppam xaraamal na ci boppam tooñ mu ne yéen jaam yi bu tooñante <coughs> moom yàlla mu ne jaam bu ñu xoolee ni ma leen defee kenn ku ne rek la xàq bu leen duggante ci seen xàq yi sa kër ngi ni deux cent mètres carrés la kii këram deux cent mètres carrés kenn ku ne am nga buntu yàlla mooy bu ngeen respectantee rek problème la te ko xududullahi falaa taqrabuha defal naa leen ay frontières kenn ku ne li nga xam nga ko li ma moom man ci tamit xam ngeen ko jox leen ma ko kon yàlla nee na li mën a dund ci jàmm mooy kenn bañu nogu ci kenn ah kenn bañu nokkatu kenn sa buntu kër nga am sa kër nga am yaay responsabilité waaye boo bëggee jël sa kër jël këri keneen yaa mu ne balaa tasaanam bu leen toogee ñuy julli di salmal ci sang-sang yi sallallahu alayhi mi nga xam ne duñ tay mukk di fàttali ko waxam parce que waxam rek mooy dëgg wa maa yantiqu ani l-hawa ku la orienté ku dul yónni sallallahu alayhi lay nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wallahi laa yumin wallahi laa yumin ñu ne ko kan la mu ne kii reer ba suur te mbokkam xiif xoolal jàngale yonent bi sallallahu alayhi am na ñoo xam ne ñàkk ki ñàkk iman yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko témoin moo ne ñii ma amuñ iman bokkuñ bokkuñ ci affaire bokkuñ ci communauté bi yéen sallallahu alayhi wasallam gën ne ñuy bokkoon ci mais ñu ne ko yonent bi ñoo ñan lay mu ne kii reer ba suur te mbokkam reerut bàyyil kal xadis bi waxut reer yi reer yi nga xam ne trois cent franc nga reer noonu gaare fukki oto am cent maison am lu dul jeex te liggéeyoo ah ba pare nga gis ñoo xam ne ñu ngi galéré ñu ngi sonn yéen salaam yi nee na kooku mënta gëm yàlla ah mooy li ñu wax rek mu ne bu leen tooñante leer na leen da nga ko fëkk da nga tooñ ay nit dëgg seen kaw jël ko ah dangaa tooñ ay nit ndax ay nit dëgg seen kaw jël seen alal te yàlla mu ne man sama bopp du ma tooñ xaraamal naa ci yéen bu leen tooñante kenn ku ne li nga moom rek li nga liggéey rek sa salaire nga moom leneen loo xam ne ci naxante nga ko amee wala ci nangam daal ñu salaay mu ne bokk. ah ñu ne doomu aadama biiram suuf rek moo ko mën a fees doomu aadama kañ lay kañ lay kañ lay kañ lay fees biiram fees mooy duñ ko bu dee ko ah ba suuf si dugg ci biir bi ba fees mu ne boobaa fees waaye mu ne ah, mu ne doylu bi ak suur gi xel la ah, du naa gën am lii rek naa yokku lii naa am lii rek noonu moo tax islam bi la ne la sa biir. suuf rek moo ko fees te waxtu woo doo ko taal ah alxinaa nas mu ne la doylul islam na nga wut ngay xool nit ñi fekk yow yaa ngi jàddu du jeex soo ko liggéey sax baax na sakka bi xam ne leer na la a xàq nit ñi laa dajale ñuy nekk ci ah teraanga ay ah, moo tax jàngale islam di la jàngal ne la su ngeen defee li ma wax pauvreté jeex. te problème yi nga gis yëpp ñàkk rek la de yéen sallallahu alayhi wasallam nee na kaanal faqru an yakuna kufran ñàkk dem na bay bay bay bay mujj sax taxaw place bi mu wéddiloo nit ñi ndax ñàkk nañ fexe nit ñi am ñàkk baaxul dimbalante leen wa taawanu alal birri wa taqwa loolu la alquran wax nee na bu ngeen bëggee jàmm dimbali leen ñu ngeen tere parce que bu baax dañu mujj nekk ay kii dal seen kaw parce que ñëpp dañuy jàngat rek ñàkk rek moo ko waral nga xool sa koom-koom xool sa réew am-am mu leer ne lii ci nga bokk xéewal gi li muy bëri san cent personnes ñoo koy séddoo bàyyi ñeneen ñi ñeneen ñi duñ noppi moo tax islam di la wax ne lan moo waral lii li nga gis moo ko waral est-ce que dégg nga ci dara est-ce que li nga gis dégg nga ci dara est-ce que maîtriser nga doomu aadama parce que yàlla moo ne. li tax ma mën a contrôler gars yi dama leen di maîtriser nit ñi kañ boo leen maîtriser wul docteur boo xamul sa feebar moom laa faj est-ce que def nga analyse est-ce que xam nga feebar bi ki nga bëgg a faj est-ce que def nga analyse est-ce que xam nga feebar bi moo tax islam toujours di la jàngal yàlla yàlla ne la man sama bopp xaraamal naa tooñ bu leen tooñante bokk na ci tooñ gi tooñ yàlla. yàlla wax nga teggi li mu wax yàlla nee na wa man yuazim sha'air allah fa innaha min taqwa al qulub bàyyi sa xel bu baax ci xutba nee na am na weer yoo xam ne bu leen ci xeex bu leen ci tooñ bu ci déggee sax di fon di fon am na ku bind démb benn question di ko laaj mu ne gars yi doon ñëw ci marché bi daanu ci bis bi ne fintech benn ndax dañoo séy fan ko lan yow jëmoo ci liggéey jëmoo ci takk jabar jëmoo ci jaamu yàlla jëmoo ci nangam koo xam ne bi la sa papa di jur bëggoo bëggutoon ci yow lii li mu bëggoon mooy nga jàng bokk ci ñi ci kaw li mu bëggoon mooy nga tedd di ko teral yow nga jóg amoo dara mooy def lu may di ci ay mbir yoo xam ne nii du la jëriñ du la ñuy dépasse dara ki nga xam ne mi lay sant li mu sant moom du ko jabaram du ko def doomam du ko def est-ce que yow ne koo xam ne doomu aadama valeur bi la yàlla jox est-ce que xam ko foo xam ne mën nga faa dee mën nga faa gaañu mën nañ laa agressé mën na ñaa mën nañ laa mën nañ laa doomu aadama bi moo ñu ñor doomu aadama waxtu jógee rek war a ci loo xam ne lu koy jëriñ parce que yàlla moo wax ci alquran ne bind naa leen pour ngeen jëriñu jëriñu ci xam-xam jëriñu ci xel jëriñu ci bañ a sonn xarisu aleykum aleykum islam bii li ko tax a jóg mooy jàmm rek ku du jàmm mi ngi jàmm moo gën ñu ci moo gën ci ci kaw moo gën ci ñu ci suuf ah ba kër yi doomu aadama kenn du ko foyee jàmm moo gën ci ci droite moo gën ci gauche moo gën muy sedd moo gën muy tàng moo gën ci guddi moo gën ci suuf moo tax maanaam ard li islam di wax ard maanaam teri doomu aadama kooku dafa bokk ci li nga xam ne islam dafa ñëw pour défendre waroo ko wax lu ñaaw waroo te ci doo dari doomu aadama lu ñaaw léegi nag buñ demee ba nga xam ne lu neex waaye rek mu wax ñu ne sëriñ si ñu wax ak ah ngeen sëriñ si danañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jumaa ji daan jàngalee wax yi nit ñi seen problème ci lañ ci leen daan orienté pour ñu jub ci li daan ci leen di xamalee seen bopp ñu delluwaat nekk ay doomu aadama yonent boobu moo lay digal mu yonent bi moo lay digal ne la ah al muslim ban salima al muslimuna min lisaani wa yadihi jullit mooy kan xadis boobu rek mënoon nañ cee jàngee ñun naa nekk lamp ñu leeral jullit du kenn mooy ki nga xam ne rek jullit ñu mucc nañ ci làmmiñam mucc nañ ci loxo jàngal alquran bu baax mu ne la bàyyi sa xel li ngay wax ak li ngay jëf loo foor foor loo mbëru mbëru yàlla bés ba ci dina yow yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjuluhum bima kaanu ya'malun bés bi nga xam ne sa cër yi ñooy seede gis nga ñu weddi woon dañu wax ne maa li alal laa yuxaadiru saxiratan wala kabiratan illaa ahsaahaa téere bi mooy ban téere bàyyiwul dara ci lu deful lu may loo am doole doole loo am capacité loo mën a wax loo mën a bind loo mën a fabriquer loo mën a yàq-yàq na nga ne bés bi dina ñëw maa li dana jàkkaarloo yow maa yaa leen kitaab da nga ko wax parce que yow ma a alayhim alsinatuhum sa lammiñ ne man maa ko waxoon dëgg-dëgg waaye dama ko waxoon ngir neexal jiw man maa tuumaaloon kii pour gërëmloo kii maa jëloon sama tànk dem fa amoo fa benn intérêt waaye sabotage moo taxoon maa ko xooloon dëgg-dëgg maa ko xooloon xol bi ne dëgg-dëgg maa ko xalaatoon ah lii maa ko xalaatoon technique bi man la maa ne woon stratégie nii ngeen di jaar nii ngeen di jaar pour pourquoi ngay saboté sa bopp pourquoi ngay saboté sa réew pourquoi ngay saboté li nga xam ne mooy li yàlla gën fonk amul lu gën a yàlla lu yàlla gën a fonk ci adduna bi lu doomu aadama doomu aadama mooy numéro wax doo ko rek yàlla meram bàyyi sa yàlla ne la li nit ñi moom soo leen ëppee doole jël ko yàlla ne la may kontur xanaa bés bi dina ñëw xanaa nit ñi gëmuñu bés bi loo wax loo def loo dugg bés bee ci yàlla dama la wax ne la gars yi même bu ñu amutoon doole pour contrôler la da nga jàkkaarloo man ma calcul ak yow bés bu jar a bàyyi xel nit ñi dañu ragal yàlla ci li ñu wax ak li ñu jëf islam dama laa wax ne la lim gën a protéger mooy personnalité doomu aadama bu teg ci daram loo xam ne gisoo ko ñu bëri ñu ngi wax te li ñuy wax seedewuñ naa yàq diw rek ndax nit ñi bañ ko naa yàq diw ndax nit ñi bañ ko bëri na te islam bañ na ko naa naa daaneel ci wax naa ko kéréel ay sos Sénégal mi ngi toll noonu Sénégal réew la moo xam ne Mauritanie gii ak Mali gënuñ leen amul xam-xam bu ñu amul waaye li ci teraanga ak ci respecté mooy li ñu suñu maam yi bàyyee mooy am ay kilifa yoo xam ne ñu ngi fàtte ñu jàpp ñi ñi leen di déglu ñu leen di respecté. waaye bu ñu doon ba loolu nag ñu bëgg ko sauver suñu patrimoine mooy kilifa diine yi ñuy gàmm ñuy nettali ñuy nettali seen tur salaay salaam suñu xol di fees ñu roy yonent bi ñuy wax alxuraan ñuy déglu ñuy bëggante di laayante biir di kafante ñu ne neen la mu ñu ko yàq ñun ñëpp ay sénégalais lañu sénégal lañu mënuñoo taxuti yàlla wax na ci alxuraan ñi nga xam ne dañuy yàq ci suuf di rey nit ñi di sàcc alali jàmbur yi ñu nañ leen rey wala ñu salab le salam leen aw yun foofu mi a ardi wala ñu génn leen suuf si yóbbu leen feneen fa leen yóbbu wala ñu yóbbu gàmmi ñu gerte rek yàgg baaxul waaye saa wala bilaaka fi saare baaxul yàgg de yàlla nga ne bu dee mbëru moo tax nga koy def maa la gën a mbëru bu dee xel mu rëy ngay jaay ko dàq bind xaaral ma bind ne maa la dàq bind foofu ku bind alquran ah, ne fii sax yàlla mu ne la déedéet kullu nafsin zaa'iqatul mawti bés dana ñëw ma jël sa bakkan ah déglu li la yàlla may sa bopp jàmm yàlla moo bind ñàkk bind am ñëpp mënuñoo jiite mënta ne jinne mënuñoo jiite malaaka mënuñoo jiite yonuntu amatu ay doomu aadama rek nga ñu mën a jiite doomu aadama mooy ki nga xam ne day tuum day def ay erreur kon compréhension rek moo fi ne ah ëppal baaxut ëppal baaxut ëppal baaxut islam moo lay conseil waxi diine ngay déglu déglu leen islam wax ëppal baaxul nit ñi ñooy nit ñi rek yàlla mu ne nit ñi ñooy nit ñi rek nit ñi rek mooy garabam waaye boo fi jéggi nii fooy dem xanaa doo dem ci diine doo dem ci ñi la gën a féetee suuf moo tax moo tax yu saa ne la bëggante leen waxante leen lu baax defante leen lu baax yow boo jàqee ci kilifa diine ngay dellu kon dellu ci ñoom xanaa moom marché yi ñuy def am na lu ko gën a gaaw demal ci sëriñ bi rek wax ko li nga bëgg. sëriñ si di se ñoo jël seen responsabilité koo xam ne boo génnee téeméeri nit ñooy taxaw bëgg laa gis bëgg laa fóon million de personnes taxaw di la màggal nga bëgg a seetaan ñu leen di sànq ana kàddu ana responsabilité ana kilifteef ana ñi nga xam ne yow la ñuy gëñee ana ñi nga xam ne yow la ñuy attiyaat wax dëgg yàlla ñooñu yàlloon nañ ci yow bu ñu bëggee fooyee nga ne déedéet ñii samay doom la li ngay ragal lan la moo tax olof mu ne lamit du sexe du mën a yàlla rek moo la mën a teral yàlla moo la mën a yëkkati li yëkkati sa maam yëkkati sa papa mooy alxuraan mooy dëgg mooy islam mooy sunna moo tax islam dina wax ne la mooy tur nga suufeel sa bopp azillatan ala almuminina aizatan ala alkafirina wa mal xayaatu dunia illa mataaru xurur poñe ci àdduna bii mu tax nga suufee parce que ëllëg doo mën a wax li la yëkkati mooy diine mooy alxuraan yow yaay ki nga xam ne doo foolee ku mukk yow la yaay bi mot de passe bi fi ne sinistre ñoo ko yore ku bëgg a connexion il faut nga wax ak ñoom ñoom ñoom rek ñoo yore mot de passe suñ kilifa yu mag yi xoolal ndam yi nga am ci àdduna bi bu yàgg Cheikh Mamadou Mahi résultat boobu mu ñu ko Sénégal waaye léegi ñi nga xam ne tey dañoo dem fële tey sëñ bi ñu ne résultat bu mag ñu nekk ci jàmm buñ jegee Sénégal lu ñuy wax ñu ne waaw ah kii de mi ngi réglé Soudan ana Sénégal ah te attention Soudan dañuy rey am na koo xam ne ko laaj nag lu tax ngay rey mu ne waaw man ñu may rey damay jël ci ñoom dara te yàlla ñu ngi rey jëlu ci ñoom dara dof boole mu ne man ñu may rey di rey ci ñoom dara waaye yàlla ngi rey te jëlu ci dara xoolal ni mu amee xam nga kii amul benn considération ci doomu aadama léegi nag yàlla mu ne rey kooku ñuy rey fi ne bii ñu ne di tiital nit ñi di tiital suñu papa yi di tiital suñu yaay yi di tiital suñu xale di baare mbedd yi yàlla nee na loolu fitna boobu moo gën a garaaw wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu information stress baaxul jaaxle am na de ku wax ku waxu jaaxle Sénégal réew yi la réew yi la réew yi bëggante la réew waxante lu baax la jàmmal sa bopp jàmmal lu tu jeex lu dul jeex amut boo yéeg yéegal ànd ak jàmm booy wàcc wàccal ànd ak jàmm mi kenn moomu ko Sénégal kenn moomu ko Sénégal pour Sénégalais yi ah Sénégal pour lan la pour kan la Sénégal pour Sénégalais yi ah mënoo ñu tiital ba yéeg mënoo ñu tiital ba doo wàcc ah mënoo ñu tiital ba yéeg mënoo ñu tiital ba wàcc ñuy waxti nañu rafetal seen wax yi tuumalante na kii téye nga ne baaxul kii waa ji ñëw nga ne baaxul waa kan moo gaa yi bind la ñuy laaj kenn ñoo kan moo baax yàgg yàgg réew mi ñu leen moo koy téye kon yàlla yàlla ñoo xam ne ah seen wax dafay néew waaye seen jëf dafay bëri ya allahu ya ñu ngi lay ñaan te duñ den di la ñaan te ñu ngi óolu ne da nga ñaan Sénégal rek lañ bugg moom rek lañ am mënuñoo gàddaay mënuñoo dem fenn ya ya rabbi ñu ngi lay ñaan képp koo xam ne bëgg nga lu baax ci réew mi yàlla nga ko dimbali ya allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan képp koo xam ne xalaatam ak plan rafet na ci yow yàlla ko dimbali yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci li ñu tëjee ba gi ne na ut du dara lu may waxal li nga bëggee rek waxal li nga mënee rek alors politicien yi sëriñ si mën na leen a jàngal politique politique mooy lii laa préparé rek sama yoon mooy nii lii laa bëgg nii lay kii d'accord ci awateeg yow kii ñàpp ci d'accord awateeg yow mais wax ju bëri ci lan la islam wax na mais nit ñi ñoo déggu kon yaa allahu yaa rabbi ki am programme bu baax yaa xam yàlla na ko dimbali. allahu yaa rabbi ki amee jàmm yaa ko xam yàlla na ko dimbali. yaa allahu yaa rabbi Cheikh Bamba ñaanu ma la nga nangul ko. maman Juma li ci classe zéro nee na jox ko ko addiya nga ak Sénégal nga nangu ko. bàyyi gis ñëw nañu salaay salaam ma dox bu taxawee ma taxaw te yàlla wan na ko ne Sénégal dana des ci kër ak jàmm te yaa garanti woon te yaa fi ba léegi. yaa Allaahu yaa Rabbi ñu lay ñaan ci garanti yooyu nga xam ne defalul ma ko mag ñu baax ñi yàlla boo ko changé yaa Allaahu yaa Rabbi ñu lay ñaan ci weeru aji yi nga xam ne weeru na bu ñaan la weeru la yoo xam ne yàlla ne buñ ci xoloo buñ ci xeex yàlla ñu dimbale ñu mën a respecté say ndigal yaa Allaahu yaa Rabbi dëgg-dëgg amul doole amul kattan amul man-man waaye sa doole ak sa kattan doy nañu yaa Allaahu yaa Rabbi fëgg benn buntu ñu ngi fëgg sa buntu yaakaarul kenn ñu lay yaakaar ñaan képp ñu ngi lay ñaan ya allah ya rabbi ñu ngi lay wax ne la bardan wa salaaman ala Sénégal bardan wa salaaman ala Sénégal bardan wa salaaman ala saa'iril umma wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin war nañu aju mari nag ñaan suuf imam bi toogee ko allah wante mu gën a midi jëm ilahi ja'alna bi taqwa wa tilal wasila wa haddana ala talabi darajati rafi'ati wal fadila amarna amran bada fi bi nafsi wa sanna bil malaa'ikati qudsi wa thallasa bil mu'minina min jinni wa insi وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرم وتنفرج بالكرم وتنفرج بالكرم وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج ويستر امام وجه كريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق ولا الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر المقدار العظيم اللهم احفظ بلادنا السنغال اللهم احفظ بلادنا السنغال اللهم احفظ بلادنا السنغال اللهم احفظ بلادنا السنغال اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن كلما اوقدوا نارا لحرق اطفال الله كلما اوقدوا نارا لحرق اطفال الله